mbokk alhamdu lillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci ab téeréem loole la nga xamee ni nii moo ci nekk ci ay ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ca lu bari mu bokk luñ cay mën a gën a fàttaliku lam doon wax ni ay julit duñu daje mukk ci benn néeg ci néegu borom bi ñuy jàng téereb yàlla bi lu dul yàlla day na wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka ye kawe ye ne fa moom yal na yàlla boole ci sun jataay bi ña nga xam ne it ñoo nekk fa ñu nekk di ko déglu en direct ñi ngi ñaan yàlla ak ña koy nelal déglu ba passé yépp suñu boroom may ñu yéene bu sell ba jagleel ñu boole ñu ca jaamam ñami jagleel teranga adduna ak teranga alaxira ñi ngi nekk ci suuratul ankabut ca jeexital ba ci aaya juróom ñett fukk ba ak juróom ci suñu boroom jalla waala di waxee ni naam wala am paas lañ foofu ay ay juróom benn fukk ba ak ñeent bon ay juróom benn fukk ba ak ñeent suñu borom di waxee ni wa man hadihi alxayatu dunya illa lahwan wa laib tey mooy ñaar fukkeelu fan ak ñett te la nga xam ne moom la ñuy tuddee rabi ussaani sun maam yi daan ko wax rakki gàmmo mu deppoog le 9 ci décembre 2020 danañu fàttali suba mooy le 10 di daje biñ jàpp ne mooy daje bu mujj bu imam Ousmane Gallaajo di daje noonam yooyu nga xam ne ñoo ko yóbbu tribunal ñu war fa def li nga xam ne mooy délibéré bi ñu ngi ñaan subhanahu wa taala yàlla na ko def bardan wa salaaman ci Cheikh Ousmane def ko ci mu nekk ndamal l'islam daf ko it muy toroxtaange képp koo xam ne da ngay bëgg a attaquer nit yi diine kon incha allah su dee ni Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk naam ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برموني وما هذه الحياة الدنيا نكل لغا خن موي دوندك ادنا جي إلا لهو ولعب نكل لدل لغا خمني لوي اتيل نيت كلا موي لهو mën na baax mën na bon wala ib ak loo xam ne ak for la wa inna daar al axira amma dunduk alaxira day la hiya al xayawaan moom mooy dëggi-dëggi dund law kaanu yaalamuun mooy ñooñu topp àdduna cay buñ xamoon mi ngi noonu buñ nekkoon di xam fa ida rakibu fi lfulk heure bu ñu demee ba yéeg ca gaal ga da'awullaha muxlisina lahu diin dañuy woo yàlla sellalal ko diine ja falamma najjaahum ila albar waaye ba leen musalee jëme leen ca jéeri ja ida hum yushrikuun ci noonu rek ñu nekk di bokkaale ak seen boroom jéeri mooy lépp lu dul géej rek yakfuru bima aataynaahum ngiree ñu weddi ci la nga xam ne ñun yàlla ñoo leen ko jox wali yatamatta'u ñuy nekkit di bànneexu waaye fa sawfa yaalamuun xel se nañoo xam awalam yaraw anna ja'alna haraman amina ama ndax ñoom gisuñu ne def nañu gox boo xam ne ñoo ko warmaal muy haraman ñu def ko muy gox bu wóor wa yutaxattafu annaasu min hawlihim teewul ña ngay këf nit ña di leen fitnaal ci lépp lu leen wër afa bil baatil yu'minuun ama ndax nit ñi ci neen la ñuy gëm wa wa bi ni'matillahi yakfuruun amma xéewali yàlla ñu nekk di ko weddi wa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziba mu ana ko gën a mën a tooñ ci kiy dóoral ci yàlla ay fen aw kazaba bil xaqi lamma jaa wala bokk mi weddi dëgg ba ka dëgg ga dikkale alaysa fi jahannama alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ama ndax nekkul ci jahannam lii di wàccuwaay ñeelu yéefér ya walazina jahadu fiina ña nga xam ne nag dañoo jihaad ci ñun yàlla lanahdiyannahum subulana dañ leen jubalal suñu yoon wa inna allaha la ma al muhsinin te yàlla day mi ngi ànd ak ña nga xam ne dañuy rafetal mi ngi noonu mbokk jullit dundug àdduna gi nga xam ni ñoo ngi koy dund suñuy maam ñoo fi jaaroon wuutu fi seeni maam ba ba sunu maam bu jëkk ba muy aadama alayhi salaam mbokk àdduna suñu borom da koo def jaaruwaay da koo def muy kërug fitna mu indi fi ay taar indi fi ay bànneex loolu nag la ëpp ci doomu aadama yi ña nga topp la ñuy tudde lëhwu lëhwu mooy lépp loo xam ne dana itteel doomu aadama bi heure bu demee ba itteel li ci jaamu yàlla day doon lu xaraam moo tax suñu borom mu ne laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah bokk na ci lëhwu mooy doomu aadama bi am ay doom toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di rey ak ñoom loolu la huula ma tax suñu boroom baka gaa yi jiñee doom mu ne law aradna an nattaxisa lahuwan lattaxasnaahu min ladunna su doon rek dañoo bëgg doom dañ ko jël ci waa asamaan waaye duñ ñëw di ko jël ci yéen doomu aadama rasul sallallahu alayhi wasallam moom la ñu doon wax ne lépp loo gaa nit jël di ko ittewoo mu koy itteel lu ci ëpp neen la xanaa lu dul koo xam ne yaa ngay fo ak sa soxna wala koy entraîner fasam ci jihad wala koy entraîner wu ci lancer ay flèche bokk loolu muy lëhu la ca des mooy laib mooy loo xam ne am fola nga xam ni amul njëriñu àdduna amul njëriñu àllaaxira fola rek boo xam ne nii day itteel doomu aadama mbokk nañu xam ne mag du fo foo xale yu ndaw yi ñoo ko yeyoo waaye boo demee ba nekk mag nga la way xamal ne foo paase na ci yow jëblul la nga xam ne mooy gis sa boroom nga bàyyi fo dem yeeyaag blood yaag caaxaan yu kenn xamul loolu lépp mbokk lépp loo xam ne ci bànneexu bakkan rek la yem mag du dugg ci loolu allahuma loo xam ne njëriñu àdduna ma nga ca loolu yi islam bañul nit ki def ko te doon loolu sport individuel yay am nit ki tàggat boppam ak yi demee noonu mu bañ a bokk ak li ñu miini sport tey ci suñu stade yi nga xam ni ay lobby ñoo nekk seen gannaaw di manipuler xelu doomu aadama yi loolu mbokk mooy àdduna borom boobu nag ne nañu xam ne dund dëgg-dëgg ma nga àllaaxira mbokk àdduna lu mu yàgg-yàgg ñaari ci mën na nekk nga pauvre sonn loolu moom ku dee xam ne ne ne neexul nga nekk milliardaire nekk président nekk lu nekk waaw bu yàggee luy xew bu yàggee luy xew dana ma fàttali màggatum pëlu ñoom Bilal Thiam yàlla na yàlla sàmm ñu sàmm ko ba benn waay taxawee ci kanam fudd ay waay yàlla baax waay mu ne ko oh da ngeen a yàggul rek waaw da ngaa yàggul ak moom rek waaye man day maa ngi nii dama daan dox fu ma neex tey mënatuma dox sama bëñ yaa ngi nii yépp wadd na sama kàttan mënatuma lekk mënatuma def dara bokk loolu misaal la wallahi téeméeri at boo demee ba jege ko rek dund àdduna soof la nga soof sax say mbokk te mooy coono ngay mujj nekk loolu kon moo tax ba mbokk àdduna borom bi misaal na ko ci aaya yu dul jeex bokk na ci liñ doon jàng ci timis borom bi nee na xam leen ne daa mel na taw bu wàcc àll bi yépp naat gàncax gi yépp roofaloo mi ngi noonu demal ci àll bi tey au mois de août nga xool lépp naat waaye tey boo fa jaaraatee mois d'octobre fekk lépp lax ne lépp wow na lépp nekk na mbopp mbokk li mooy àdduna mi ngi noonu ab théâtre la rek comme ni nit ñi di théâtre nit ñi dañu fi jaar ñu ne yow yaay président yow yaay général d'armée yow milliardaire nga yow yaa moom immobilier yaa moom bateau yi fii quelques années ñoom ñëpp ñu dellu nekk ci biir suuf yeneen génération ñëwaat kon dund gi nga xam ne nag du jeex feebar amu fa jaaxle amu fa amul benn problème boo xam ne da nga koy dégg ci keneen salaaman salaama loolu mooy allaxira hiya alxayawaan ku ne bàyyi ci xel borom bi bàyyi loolu di wax nag ne kéeféer gu njëkk ga la ëppoon ci ñoom xam nañu seen boroom waaye bànneexu bokkaale moo leen noot looloo tax bu ñu mësaan dem ci digg géej ba xam ne dara di suuf lu dul gaal gi suux ñoom ñépp dañuy woo yàlla sellalal ko diineem amma bu ñu muccee ci jéeri ji nag commencé di ko bokkaale loolu mbokk da ngay gis ne képp koo xam ne ni xellu nga da nga war a mel ne ikrama doomi abi jëhël bañ demee ci géej ga gaal gay bëgg a suux benn magam arab jóg ne ah su ngeen woo keneen ku dul yàlla rek gaal gi dana suux yéen ñépp sax leen ci ya allah ya allah ikrama ne ah géej gi ni mu yaatoo su dee yàlla rek a fii sowe kon jéeri ji yàlla fii sowe muhammad woowuñu lu dul ni nañ yaakaar yàlla kese ay yàlla maa ngi dogg ci yow ne bis boo ma génnee ci lii danaa dem ci muhammad tuub dugg ci lislaam ba ko yàlla sowee noonu la ko defee loolu it mbokk yow mi borom xel yàlla rek mooy xëcc li doomu aadama ci géej ci jéeri ci problème bu mu mën a doon borom boobu nag subhanahu wa taala ne su ma leen indee ci jàmm ñu nekk di weddi ba pare nekki di bànneexu mbokk loolu yàlla ko seetaan borom bi mu ne fa sawfa yaalamuun yàlla waxul luñ bànneexu de aha kay yàlla day yokk seeni xéewal loolu it yow ndawal julit bu mu la nax soo gisee tey occident nga xam ne mooy berceau ci wàllu kéeféer mboolem xéewalu àdduna fa la nekk suñu borom nee na bañ demee ba jàdd yoon fatax na alayhim ababa kulli shay dañ leen a ubbi lépp loo xam ne soxla nañ ko ci àdduna looloo tax ba ñun sax li ñuy bànneexoo seen mbarit la ñuy bànneexoo gis ngeen oto yu 90 pour cent oto yi ñuy puukare woo fii ay tubaab ko waroon ba wàcc ko am déet ñu naan mooy 5 ans mooy 6 ans mooy 8 ans kon mbokk bànneexu àdduna ngalawaay buum la nax yow ndawal julit loolee firiwul ngërëmal yàlla moo ci nekk bal nattu yàlla la ci loolu borom bi wëlbati ko wax ak waa makka ay yéen waa makka kenn wóor leen woon a jiitu ci wéetal yàlla yeneen gox yépp nit ñaa ngi dem di attaquer seeni dëkk di jël seeni soxna ak seeni doom di yóbbu yéen ñu may leen ngeen doon foo xam ni kenn ñi mu fa dugg di fa def lu bon ca mbokk yàlla dafa aar makka depuis ibrahima samp makka ba tey yéeféer yi liñ daan bon bon bon bon seen bon musul yegg makka pour ñoom jàppoon nañ ni ku fa def lu bon rek da ngay alku ca it noonu la amee woon mu ne kon bàyyi leen xel ña nga xam ne dañoo nekk ci nattu yéen ngeen nekk ci jàmm ngir ngeen mën a wéetal seen borom loolu yàlla ngi doon wax ak waa makka waaye ngal la waaye ñun ñuy dund ci kaw suuf it nañ bàyyi xel mbokk julit suñu réew mi ak pas mal réew d'africain sunu maam yi tubaab bi ñëw ne fi ñetti siècle lu ñuy tuddee traite négrière jàpp sunu maam yi di leen embarqué comme xar ci gori gi di leen tasaare Portugal Angleterre États-Unis du ne tubaab yi ñoo daan dem sax ci biir dëkk yi jàpp nit ñi waaye suñuy maam ñoo daan jàpp suñuy maam da ngay dégg woykat yi naan démb metti na dañ daan tëdd ba guddi jot buur tëggum dëndëm na jóg leen fii ko fi fanaan dib jàpp xaaju guddi nga dégg attaque ñëw ñi mën a daw daw ñu munta daw ñu buub leen jàpp leen ñooñu ñooy ay jaam loolee mbokk suñu demee ba yàlla teggal ñu ko yaa ngi nekk sa kër tëdd sa lali éponge frigo yaa ngay takk ventilateur yaa ngay takk nga am jàmm nga war di sant yàlla jalla wa ala waaye lu ëpp ci doomu aadama dañuy boole loolu lépp jërëjëf sëñ diw jërëjëf sëñ diw fàtte yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xéewlu leen ci loolu amma suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ndax dañuy gëm neen weddi xéewlu yàlla borom bi subhanahu wa taala nag ne ana ko gën a mën a tooñ ci kaw suuf ci ki nga xam ne daa dóoral yàlla ay fen mbokk ba bokk na li gën a bon lu doomu aadama di def ci kaw suuf mooy yàlla nee na ci yàlla waxul yàlla yónni na ma yàlla defal na ma yàlla defal na suñ diw duural yàlla ca la ngay wax yàlla defu ko kenn dong la méngool mooy ka nga xam ne la yàlla wax du ko wét kee moom daa duural yàlla wax ci yàlla waxul kee la yàlla wax mu weddi ko moo tax suñu borom mu ne ñaar ñii ana kan moo leen gën a tooñ waaye borom boobu subhanahu wa taala mu ne xanaa sawara amul place bu doy ñel yéeféer yi ah kay mbokk képp koy dóoral yàlla suñu borom yàlla mi ngi lay seetaan képp ku weddi waxi yàlla suñu borom yàlla mi ngi lay seetaan ndax lu mu yàgg yàgg yàgg sa place ma ngi lay xaar ci sawara te waxuma sawara yéeféer bu ne am na fa place waaye yonent bi alayhi salaam sax nee na amul ku yàlla bind di nit ak jinni lu dul wuutal utal na la place ca sawara heure boo jaamoo yàlla jaar fa ko neex mbugal yooyee ñu dolli ko waa sawara waaye amul kuy dugg bàmmeel lu dul bala ñu laa woon sa kër ca àjjana daal di jëkk a woon kër ga nga naroon a dugg ca sawara loolu kon mi ngi noonu suñu borom dana fa jóor yee féer ya malaaka yi naan sawara ndax fees nga mu naan hël min mazid ndax am na lu ñu may dolli ñuy dolli par centaine de millions par yàlla xam baba suñu borom yàlla di ko tëj ci kattanam jalla wa ala lii mbokk mooy la borom bi subhanahu wa taala wax amma nag aaya bi yàlla mu jëmu ne ñi nga xam ne ñooy jihaad ci suñu yoon dañ leen jubal la nga xam ne mooy yoon yi ñu tëral mbokk jihaad bokk na ba ci gën a mag mooy nga génn sa kër gàddu say arme ngir xeex ak yéeféer yi loolu mooy la ci gën a màgg waaye forme yi bari na bokk na jihaad ak bakkan bokk na jihaad ak yéefi ak naafiq yi ak jihaad yu bari borom boobu nag ne ñi nga xam ne ñooy jihaad jihaad mooy leen mooy effort ñay def effort ngir sàkku sama ngërëm danaa leen jubal ci sama yoon yoon yooyee mbokk mooy fa ngërëmal yàlla nekk ca julli ga ca aj ga ca sarax ya ca lépp luy jur ngërëmal yàlla borom bi neen naa leen ci jubal te yàlla mi ngi ànd ak ñi nga xam ne seen lépp dañ koy sellal mooy almuhsinin yàlla ngi ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne dugg nañ ca loolee mbokk mooy grade ba gën a kay bu doomu aadama di sakku yal na yàlla ànd ak ñun fi dunya wal axira mi ngi noonu Cheikh Ousmane